Gaston tamit bëgg na benn combat boo xamante ne daf koy def huis clos comme ni mu ko waxee keroog ci journal sunu làmb mu combat Eumeu Sène Lac mu ni le 4 avril la est ce que waxtaan ngeen ak moom tam ba déggoo parce que seetaan noonu naa mu ne da ngeen daje ci bantamba bi est ce que daje bi am na est ce que waxtaan am na est ce que juboo am na ba ngeen war a def combat bi. non Gaston kay lu ñu dajee kenn mënu koo compter macha allah Gaston fu mu toll nii dafa mel ni dañ koo piqûre euh, deretu gaynde parce que fu mu toll nii waaw waaw waaw mu toll nii yaram bi tàng na torop torop et moom li ma gis si moom nu mu décider pour organiser événement am gis guma sax promoteur bu ko di Gaston il est prêt tout de suite. Hmm? te su ma juumul premier grand combat bu ñu nar am ci saison bi moom lay doon diggante Eumeu seen ak Lac de Guiers te dégg naa ni da ciy boole Modou Anta ak Diène Kaïré le même jour. ak am na beneen combat boo xamante ni mu ngi ko ci dox combat bu mag boo xamante ni bëgg na ko ci toftal. Hmm. donc loolu mu bëgg def ça va être un plateau exceptionnel. Hmm. te système bu mu ko bëgg a defee itam waxtaan nañ ceeg moom sénégalais yi nañ ci gis seen bopp bu baax a baax par rapport à la diffusion mais xam nga ni Gaston moom dafay jàppale président de la république. Hmm. donc bu ñu tollee situation bi nga xamante ni état. dafa ne huis clos yu bëri gëmuñu donc c' normal que Gaston wane la voix. wane la voix mooy ma ñëw ñëkk a tëgg. wan samay rakk promoteur ni que c'est possible donc Gaston ci tànk yooyu la nekk fu mu toll nii moo tax mu ngi accélérer la cadence mhm. waaw mu ngi accélérer vraiment le plus rapidement pour tëgg combat bi te su ma juumul combat bi du génn fii ak ñaari weer yu ñu jëm nii daal gëm naa ni combat bi dina am. moom kay journal sunu la moom sortie bi mu ci def daanaka bëgg na le 4 avril date bi. non Gaston bëggee la 4 avril la koy am parce que fii ñu fi nekk ñëpp ci promoteurs yi ay rakkam lañu ay doomam lañu ku ci jël demit datu le 4 bu la ko ñaanee nga may ko ko. te loolu yàgg na fi ci làmb ko Nicolaï yàgg na fi bëgg ay combat ay date promoteurs yi may ko ko. Hmm. Gaston yàgg na fi bëgg ay date promoteurs yi may ko ko parce que ñoom ñaar quoi qu'on puisse dire ce sont les mentors ak Serigne Modou Niang. Hmm. allah nga xamante ne xale yëpp ci moom la ñu luxee ko. Hmm. donc ñoom lu ñu fi bëgg du jafe ci benn promoteur mu defal leen ko. ok loolu am na solo léegi déggoo am na seen diggante ak moom wala déggoo amagul. non déggoo am na déggoo kay weesu na am ci liggéey ak moom ci Eumeu Sène Lac de mm. ci 2. ci ak euh, Balla Gaye 2. Mm. waa déggoo am na ci diggante Gaston ak Beuz Pro liggéey bi ñu ngi ànd di ko dox. fu mu toll loolu féete na boor. féete na boor lan lay lan lay membre CNG la mais lu ko jiitu dañ doon gis ni da ngeen ànd lu bare bëri ci événement yi moom dafa bokk Beuz Pro wala dafa seq ak ak ak Beuz xamante ne day jàppale Beuz. non Issa Ndiaye xam nga problème la Issa Ndiaye dafa fekkee xam problème mooy bëri na. 80 pour cent ci milieu làmb 90 pour cent ñuy wax ci pay-per-view xamuñ ci dara. Issa Ndiaye na yàlla da ko may mu nekk borom xam-xam. koo xamante ne macha allah dafa nekk boroom xam-xam te yàgg ci làmb depuis jamonoy elf mu ngi sponsorisé làmb nekk ci ay sociétés am day sponsorisé làmb di ànd ak promoteur di liggéey. campagne bi nga fi gisoon Balla Gaye 2 Modou Lo Samsung defoon ko fi. Mhm. ñoom ñaar ba ñu gis naan Modou Lo téye na flamme olympique ak yooyu Issa Ndiaye moo fayoon Balla Gaye 2 fayoon Modou Lo pour ñu def campagne boobu pour Samsung boobu mu ngi nekk euh, à un poste très au niveau de Samsung. donc Issa Ndiaye dafa nekk nit koo xamante ne yàlla may na ko xam-xam macha allah ci wàllum làmb ci wàllum marketing ci wàllum communication. Mhm. lu ñu booleeg moom nag. ci suñu deuxième événement pay per view lañ def premier ak Luc Nicolaï Balla Gaye de Gris Bordeaux mhm. deuxième bi Gaston Mbengue moom la dénkoon lépp li nga xamante ne moom moo jëwoon ci événement bi mhm. ci Balla Gaye de Modou Gaston Mbengue moom la dénkoon événement bi combat bi sax Issa Ndiaye moo ko signé sa ak IACOM mhm. donc tey jii ñu wëlbatiku ci loolu Issa Ndiaye géré woon communication ou combat bi géré woon côté pay per bi ak ñun moo nekkoon suñu interlocuteur ñu nag Gaston lu ñu doon def ci ay réunion bariwul Issa Ndiaye lañ du gën a réunion Issa wax ñu ne ñu ah man kat leen may dara ci problème technique yi ak yi ak yi. Hmm. bu ñu dem di seet sponsor yi moom moo àndoon ak ñun teg ay exigences am nag en tant que promoteur. Hmm. ñu satisfaire toutes ces exigences là. moom mu gisal boppam ñun façon bu ñu liggéey ci pay per view mu ñu. mu dem ba ci biir mu am ñeneen ñu ñëwoon parce que moom xam nga Issa particularité bi lu ñu boole dafa yomb dafa bëri ay nit yu nekk États-Unis France ak fii Sénégal ne mun nañu pay per woo Gaston woo ko moom Issa Issa organiser ay rencontre ma toog ñooñu toog rencontre yu bëri ku ne ñoom mun na pay per view yomb na lu bës pour def ñoom mun nañ ko def kooku toog Issa toog ma toog mm-hmm. ci réunion yu bëri mais saa yu ñu saa yu ma posé question ñooñu mais li may wax sax duñ ko xam te nee nañu mën na pay per mën nañu pay per su ma leen ne ah man kat amoon naa jafe-jafe bii fii laa jaar ba corriger ko yow fan ngay jaar pour corriger jafe-jafe boobu est-ce que yow am nga solution bi est-ce que am nga solution bee woon ñu sa plateforme mais dara taxawu ci ñooñ dañuy wax rek. mooy sama mbokk yi nga xamante ni toog nañu am seen benn diplôme ñaari diplôme ci informel ñu toog jàpp ni affaire yi yomb na. donc Issa Ndiaye dundal boppam gisal boppam ni gars yi bëri ju wax amuñu xam-xam ci lu ñuy wax. donc loolu moo ñu boole ba après mu ñëw gisal boppam ñeneen ñu demal seen bopp def pay per ba ci fin bi ñu càng lépp mu fekkee donc loolu moo tax mu wóolu Buzz Pro mais bokkul Buzz Pro. Mm-hmm. mais Issa Ndiaye bu ko CNG. bu ko da ngeen ko woon daal lu ko doy. waaw bu ko Matar Ba copté ci CNG bi. Mm. c'est parce que dafa wone xam-xam bu doy sëkk ci communication ak marketing moo tax ñu copté ko foofu. Mm-hmm. macha allah mais ñu nag moom rapport yu ñu am ce sont des rapports de travail il est proche de quelqu'un comme Gaston Meng il est proche de certains promoteurs. Mm-hmm. te tey jii il est au niveau du CNG. Mm-hmm. xam na euh, lu bëri ci marketing ci communication ak ci làmb. yaakaar naa loolu moom moo créé suñu ay rapport la fàtte mu ñëwaat combat moo Lo Eumeu Sène nga ne ci jour bi nga juboo ak waa ak taf Moustapha Diop erreur yu mel noonu est-ce que jotul waa Beuz Pro ngeen koy éviter parce que mënul ngeen def euh, erreur ci côté technique wala da ngeen a pare woon ak ñàkk juboo bi lan moo ko waraloon. non ja ñàkk juboo bi lu ko waraloon wax naa la ko ñoom dañu amoon seen plateforme bi ñu doon diffuser plateforme bi ñu ne plateforme bii la ñuy diffuser muy wasaa wasaa waaw plateforme wasaa la ñu amoon boo doon diffuser ak plateforme wasaa boobu noonu. Mm-hmm. mais bu ñu ñëwee ba ca dernière minute bi. Mm-hmm. Euh, ci la ñoom ci la ñu gisee ni que am na ay erreur technique yu am ci plateforme bi te loolu boo ko deful doo xam ak say informaticien lu ñu xarañ xarañ xarañ il nga ñëw ba ca bës ba pour gis problème technique yi. ñun loolu lañ jot a ci pay per view moo tax ñu maîtriser pay per view. Mm-hmm. dañu ñëw dundu bës yu metti ci pay per view bës yu compliqué ñu ut ay pexe ba génn ci. donc ñoom loolu la ñu am ci bës ba mais ñun bës pro dañu mës a gëm ni ko combat boobu ñoo koy def. moo tax dañu pare woon dañ ko waajoon dañu waajoloon suñu bopp. te fu mu toll nii bës pro système bi demee na noo xamante ne boo bëggee pay per view ginnaaw suba ma defaral la ko. Hmm. boo bëggee pay per view tey ci ngoon ma defaral la pay per view tey ci ngoon mooy bi pare na fi gars yi wax yëpp fu mu toll nii pare pare ngeen ñun machine bi pare na boo bëggee tey ci ngoon ngoon ngoon ngoon ngoon ma defal la pay ñi lu ñu bari bari bari. ma defal la ko tey ci ngoon ma defal la ko tey ci ngoon kon saison deux mille vingt deux mille vingt nit ñi duñ jooy dara. non non incha allah dinañ seetaan dans les meilleures conditions possibles. Hmm. voilà. Ah, tàggatoo. waaw di di di la gërëm di gërëm ñi nga xamante ne ñooñu doon seetaan ñëpp à travers Lutte TV di jégalu itam parce que parfois gars yi dañ may wax ni man sama wax day xaw a tàng ah gars yi loolu lañ may mais xam ah, ngeen may comprendre je ne suis pas un expert de la communication je ne suis pas un journaliste man maa ngi ci volet technique bi ak volet informatique bi des fois su ma dugg see damay je parle avec le cœur waaw donc loolu moo tax duma ma raay raayal yenn wax yi li ma xalaat moom laay wax même ba ci cadre làmb sax buñ ciy waxtaan su may def émission làmb sax damay wax lu ma xalaat laay wax néew ma fi di ay cinquante cinquante su ma gisee ni mbër bi mooy favori dama koy wax donc yaakaar naa loolu lu jaroon leeral la may jéggalu ñi nga xamante ni ñooñu doon seetaan ñëpp ci kàddu yi nga xamante ni peut-être dëng na di wax Sénégal encore une fois nañu àndandoo booloo c'est le moment des grands ensembles wax naa ko ci émission yi ba tàyyi moment bi mooy moment booloo ñu bàyyi di ànd di naxante yow yaa ngi ànd ak buzz mais yaa ngi xool buzz tey ji côté bu mu mënee noo koy mënee fàddee pour jéggi ko nañu bàyyi loolu affaire bi yaatu na ku ne mun nga ci lekk sa wërsëg ku nekk mun nga ci lekk sa wërsëg mun nañu ànd yaa a beaucoup de gens ici on les a aidés ba ñu taxawal seen ay affaire macha allah ci côté yu bëri mais après ñun amuñ ci luñ ci neex te loolu yaakaar naa mun na ñàkk parce que bu ñu àndoo booloo nekk benn yooyu yëpp dinañ ko éviter waa ku nekk na nga góorgóorlu ku ci am xam-xam ci nu ñu def ñëwal ñu bokk liggéey bi ñu nga jël ci sa wërsëg moo gën ñu yàq liggéey bi te li may wax ni pay per bi kese taxul may wax lu bëri moo tax may wax mm. waa ci ay expérience yu bëri yoo dund naa ko ci milieu làmb milieu bu doy waar la milieu bu bëri war la mm. milieu bu bëri war la te loolu yaakaar naa war na mu ñàkk nañu bàyyi di jiital intérêt personnel mm. waa lool lu lu lu lu jar a bàyyi xel la lamin may gërëm téléspectateur yëpp di la gërëm ci liggéey bi macha allah di gërëm sa caméraman Mohamed